yéen saa su ne waxtaanee euh, tolluwaayu réew mi ak euh, actualité tey nag am nañu mbégte dalal euh, El Hadji Mansour Mboup moom di coordonnateur collectif citoyen Le Peuple ñu ngi lay nuyu bu baax a te am mbégte dalal la ci Sen TV rawatina émission Sen Show Euh, salaamaaleykum euh, ñu ngi leen di nuyu di leen euh, remercier également ci invitation bi ci sunu tur ak ci turu coalition bi nga xam ni moom mooy coalition citoyenne le peuple. très bien ci noonu itam du ci wet benn yoon ndax ci wetam am na Serigne Saliou Keita directeur général bu CICES e di membre itam ci alliance pour la république Saliou Keita ñu ngi lay nuyu bu baax a baax am itam mbégte dalal la ci Sen TV rawatina Sen Show. merci beaucoup Mohamed. di rafetlu encore une fois invitation bi di nuyu euh, Fatou ak sama co-débatteur euh, sëñ Mohamed euh, Mansour di nuyu téléspectateurs yi ñu seetaan di wax ni c'est un plaisir toujours un plaisir ñëw participer à l'émission Sen Show. très bien le plaisir est partagé du ma ci wet man mi émission bi daa ci ànd ak Fatou Abdou Ndiaye mbokk yi léegi léegi ñu tàbbi ci waxtaan bi. alors euh, laaj bi dañu koy tàmbali ak yow euh, Saliou Keita ñu wax lu jëm ci wàllu Covid 19 mbas mi euh, Sénégal boobu léegi mu ngi ci riposte bi ba fi mbas mi tàbbee ba léegi ñu gis na sax am nañu ay solution yu juddu mooy vaccin yi nga xamante ne nii tàmbali nañu ko jot Sinopharm bi ba ñu tàmbali ko AstraZeneca bi daal di ñëw waaye lii ñuul ci soo mi rek mooy li ñu jotagum dégg ci AstraZeneca bi nga xamante ne nii wax nañu ne réew yu bëri bàyyi nañu ko ndax jeexital yu muy def yooyu leeg vaccin ci doomu aadama yi nga xam te ni ñu ngi leen koy vacciner ca foofa alors yow naka nga jàngatee situation pandémie koy gérer en tout cas riposte waaw di wax ni euh, effectivement ñu ngi suivre actualité bi euh, ni nga ko waxee yaa ngi wax ay pays dëkk yoo xam ne ni c'est de pays européens foofa c'est différent li nga xam ne ni am na Sénégal euh, dégg nañu am na ay réew yu bari yi nga xam ne tey annulé wuñu mais dañu suspendre parce que annuler ak suspendre pas chose jàpp nañ ñoom cinq millions d'habitants vacciné nañ leen mais gis nañ ni plus de trente personnes yoo xam ne ni dafa am ay effets secondaires ba ñoom ñu taxaw suspendre ko en attendant ñu gën ko càmbar mais fii Sénégal commencé nañu vaccination bi te wax dëgg yàlla euh, autorité sanitaires yi on leur fait confiance ndaxte ñoom comité bi nga xam ne ni tey mettre nañ ko en place le comité consultatif jàpp nañ ni réalité yi nga am Europe ak réalité yi fii du benn ndaxte euh, campagne bi wax dëgg yàlla euh, Sénégal tey ba ñu ko commencé ak léegi plus de trente mille personnes vaccinées nañ leen waaye ba léegi zéro euh, problème la ñu gis mm-hmm. donc ñu jàpp ni dañuy poursuivre campagne bi nañ ko pour poursuivre mais gën a moytu xool nakk lañ siy demee te loolu aussi dafa am solo parce que tey vaccin rek moo mën a euh, euh, régler problème bi. très moo mën a régler problème bi waaye beneen problème itam ñu ngi koy séentu ndax njiitu réew mi am na xemmemteefu euh, teggi état d'urgence sanitaire bi le 19 mars est-ce que du ñëw am beneen jafe-jafe ci xeex mi. c'est une sociale. président de la république. Mhm. dafay déglu askanam. dafa am fu ñu jógee ay manifestation boo xoolee manifestation yi ñu jógee ndaw yi jóg quatre-vingt pour cent ak mag yi nga xam ne tey masse silencieuse waxuñu mais boo xoolee lépp c'est parce que dañu leen tënk dañu bëgg ku leen bàyyi ñu ubbeeku ñu libre te président de la république déglu na jeunesse am déglu na askan bi li ñu bëgg a nañ dem si loolu mooy nañu bàyyi nit ñi ubbee nañu bàyyi nit ñi féex waaye nit ñi nañu jël sa seeni disposition par rapport ak mesure barrière yi man mi di wax a yow ñaxu na astra bi laa ñaxu mais. Hmm, d' accord dina ñëw ñàkk bi moom dafa mel ni dafa <laughs> dafa féete ci benn boor loolu moo xam naa dama la koy. féetewul boor de non ci ñëw dinañ ci ñëw <laughs> dama la koy sànniwaale noonu rek pour nga waajal ko le temps que ma jox Fatou Abdou Ndiaye moom it mu tàbbi ci waxtaan bi Fatou naa la bu baax Mouhamed ñu ñëw rek peut-être ci Serigne Saliou euh, yaa ngi wax ne ñàkku nga muy peut-être la campagne de vaccination bi nga xam ne Sénégal door na ko boobaak léegi def na ay fan mais une campagne de vaccination boo xam ne dafa am nu ñu ko tëralee cest à personnes vivant avec comorbidité am plus de cent ans ñooy priorité ak le personnel médical mais tey ni ñu ko gisee ni ñu koy vacciner ba ci sax palais de la république euh, vaccination boo xamante ne euh, dafay xaw a ànd ak benn folklore bi est-ce que loolu la doon xaar. oui c'est pas ça dépend sur lecture bi ngi siy def. moi je ne pense pas que dafay am folklore xam nga lu tax. parce que vaccin bi xam nga Sénégal mooy dëkk boo xam ne wax rek la ñuy def mais bu ñu taxawee ni bu football jotee nga jàpp ne tout le monde est expert du bu fekkee santé moo am tout le monde est expert de la santé ba nga xam ne tey euh, ñi nga xam ne ni tey dañ leen di jox kàddu bi te waruñu wax te ñu ngi yàq xelu askan bi mais tey ñi nga xam ne tey ñoo jiitu yàlla jiital leen muy les autorités nañu wan rassurer les populations nekk ñun kat ànd nañ ci dinañ ñàkku loolu buñ ko defee parce que gis nañ ni les autorités euh, religieuses les autorités administratives politiques ñëpp génn nañ sanitaire leen kat bu fekkee dañu jiitu ñun nooy njëkk vacciné te def nañ ko sa loolu moo rassuré population yi ba nga xam ne ne tey a plus de trente mille ah, personnes mais vaccin yu matul euh, euh, monsieur Keita vaccin yoo xam ne matul Sénégal amu ci lu mat c'est-à-dire que benn nombre la ñu amagum pour le moment est-ce que loolu mën na ñu xaar ay nit yoo xamante ne amuñu comorbidité ngeen jàppee leen ne peut-être que am nañu opinion rek war nañu mën a vacciner wu sans pour autant ñu jaarale ko ci ñi nga xamante ne ñoo ko soxla cest lecture bi mën na bari li ngay wax nii mën naa la jox raison mais keneen aussi bu waxee nañ ko jox raison parce que Sénégal la ñu nekk Sénégal la nekk tey jii ñu gis un leader comme Bougane Gueye Dany dem ñaxu mais am na ñoo xam ne ils sont derrière lui dinañu wax ne ah ndëgëm Bougane moo dem ñàkku man naa dem mais ndëgëm Bougane moo ne mbir mi baaxul mais ñu bëri aussi dañu mbir mi baaxul ba ñu jàpp ni askanu Sénégal bu leen kenn fooy nañu ànd ak askan bi protéger askan bi parce que bu fekkee ni feebar bi aussi dafay law am fu muy toll dina indi ay problèmes yu bari au plan social mais également au plan économique. donc communication ko jàppee peut-être El Hadj Mansour ban jàngat nga am ci li nga xam ne moom mooy mbas mi mais vaccin yi ak AstraZeneca bi nga xam ne beaucoup de pays aujourd'hui suspendre nañ lu jëm ci vaccin boobu. waaw euh, jërëjëf euh, Fatou Abdou euh, di rafetlu sa pertinence su question bi nga xam ni moom nga ñu laaj mbas mi dafa doon jàngoro joo xam ni dafa complexe. parce que dañuy wax ni virus maanaam doomu jàngoro bi koy joxe c'est un virus qui est mutant maanaam dafay soppeeku donc benn jàngoro bi Russie am nañ seen vaccin bopp européens yi am nañ seen vaccin bopp chinois yi am nañ seen vaccin bopp américains yi am nañ seen vaccin bopp ñun li ñu doon xaar mooy puisque état du Sénégal def na ci mille milliards te ñu am ay chercheurs am ordre des médecins am ordre des pharmaciens tey jii ñoom mënoon nañ def une analyse la situation attester maanaam ñu càmbar ndax war nañ mën a vacciner sénégalais yi wala déedéet li ci waroon njëkk mooy ñi nga xam ni mbas mi jàpp na leen ñu jiital ci ñoom vaccin bi bu dee nag gis nañ ci ay coppite maanaam ci seen wér-gu-yaram bu boobaa nag ñu étendre élargir ko ak toute la population mais su ñu commencé chinois yi jox ñu jox ñu deux cent mille doses yoo xam ne ñii nee nañ dañ ñu ko may ñi neen dañ ko jënd kenn xamul nu mu demee matagul sax weer ñu indul ñu AstraZeneca te dëkk yi ko defar ñoom arrêté nañ ko ñun ñu bëgg ko téye donc nous allons à te santé publique dafa nekk loo xam ni c'est sacré waruñu fooye wér-gu-yaramu Sénégalais yi donc ce qu'il faut faire mooy ñu càmbar ko xool lan moo tax réew yi nga xam ne ñoom ñoo créé AstraZeneca bi ñu bloqué ko loolu également dafa nekk lu am solo parce que bi ñu indilee vaccin bi sax waroon na am benn temps boo xam ni de contre expertise am nañ ay laboratoire ñu xool ndax dina am jeexital ci wér-gu-yaramu sénégalais yi am jàngoro ji balaa ñu koy piqûre ñi nga xam ni ñoom ñooy askan wi je crois que puisque ñi ko defar daal am nañ fuñ ci taxaw ñun aussi dafa am fuñ ci taxaw. du ñu tere nag ñu euh, féliciter le le corps médical sénégalais. parce que mais au delà au delà euh, euh, ki nga xamante ni moo di El Hadj naka nga ko jàngatee ci réewum Sénégal boobu ba léegi ba mu taxawee bàyyiwul benn yoon ci xeex bi ba ci sax vaccin yi ñëw donte am na coow comment est-ce jàngatee riposte bi Sénégal def par rapport ak mbas mi di Covid 19 taxawaay bi baanaan. riposte bi Sénégal def moom. dañ ci dañ ci dañ ci dañ ci wax ngàcce ngalama les autorités d'État di ci wax ngàcce ngalama également li nga xam ne mooy le corps médical sénégalais parce que gis nañ rythme bi nga xam ni moom la jàngoro ji doon avancé ci yenn réew yi ñoom bi mu ñëwee rek dañ ko jël à bras le corps jël leen dispositions nécessaire ba nga xam ni law bi mu waroon law ak lor bi mu wala lor askan bi loru leen loolu également c'est pas parce que da nga nguur wala da nga contre nguur li nga xam ni moom mooy ay points yu positif doo ko reconnaître mm-hmm. ci aspect boobu di wax bravo et du courage ñu continuer ci mais également li nga xam ni moom moo teew muy vaccin yi parce que quand même vaccin yi su dee du la teree takk sa te du la tere nga contracté jàngoro bi moi je ne vois pas la pertinence de se vacciner et c'est tout à fait légitime heureusement qu'ils ont pris la précaution ne vaccin c'est pas obligatoire te loolu je crois que lu am importance mais boo rafetloo pertinence euh, kii bi ni ko sëñ Saliou waxee woon sànq est-ce que yéen itam amoo leen ci part de responsabilité donte ba një ba njiitu réew mi njëkk gis nañu ne force vive de la nation yëpp ko wuy ji woon ca palais de la ci parti au ñëpp boole seen yoxu mu doon benn riposte Euh, dalandoo mu gaaw jóge fii ci mim réew di Sénégal. waaw c'est que dafa ay maladresse yu nekk ci diggante bi xam nga c'est une question sanitaire du affaire d'État du affaire politique c'est une affaire sanitaire donc dañu doon jël le personnel médical sénégalais on a des pharmaciens on a des médecins ñu boole leen ñoom ñu taxaw c'était à communiquer sur la maladie mais waroon une communication politique sur loo xam ni c'est une question de santé publique te ñëpp xam nañu wér-gu-yaram li nga xam ne importance boobu la am su ko médecin wu yëpp xooloon pharmacien ñu ànd jël ay conclusions ne AstraZeneca bi baax na bi nga xam ni moom la Sinopharm def baax na ñàkku ji leen bu boobaa nag nit ñi dañuy gën a nekk ci confiance mm. mais c'est pas parce que des leaders d'opinion dañu jiitu ñaxu rek que le ay parce que quand même ay nit leen yoo xam ni dañuy jëfandikoo xel lu leer da ngay dugg mais lu loo xam ni leeru da ngay moytu <laughs> alors El Hadj Mansour euh, ñu ñëw peut-être ci coalition bi coalition citoyenne pour le peuple ne da nga ko bokk ak euh, gis nañu Dame Mbodj ku ci mel ne Assane Diouf ak Clédor Sène ngeen waroon amal doxu ñaxtu boo xam ne mujjul am ndax arrestation yu ci amoon mais tey euh, ñooñu ñu tudd daanaka ñu ngi ci kaso bi bokk na ci Guy Marius Sagna lan lañ ci mën a jàpp présentement ci seen situation puisque démb ñu ngi annoncé que ne dañu waroon tàmbali grève de la faim boo xam ne dañ ko mujj dakkal ndax ñaan bi nga xam ne sëñ Mountakha Bachir ñan na leen ko Euh, waaw man je suis témoin des faits parce que ki nga xam ne mooy le xalif général de Mourides di sëñ euh, Muntaxa bi mu yónnee émissaire am j'étais j'étais là-bas euh, li nga xam ne moo ci nekk dañuy ñaawlu arrestation yi nga xam ni moom lañ téye ñoom Guy Marius Sagna ak ñoom Clédor seen waaye nag yàlla lu mu def rek dafa am dafa gën parce que tey jii Guy Marius Sagna su ko fekkoon mu nekk ci biti bu ñu taalee Auchan yi mën nañ ko ko jiiñ parce que mu xeex mu ngi koy xeex depuis ay at. Clédor Sène également su fekkuloon ni jàpp nañ ko bu nekkee ci biti mën nañ ne vent de révolte bi mënoon nañ ko ci accuser ci boobu situation bi dafay gën a grave. li ñuy ñaan Macky Sall mooy ñun ñëpp xam nañ koy Guy Marius Sagna mënul taal Sénégal mbëggeelam ci Sénégal moo waral li ko dal yëpp dal ko donc du kooku mooy taal Sénégal. Clédor seen ñoom Assane Diouf ñoom Baye Souley mënuñu yokk ci nguuram dara mënuñu ci wàññi dara li ko desee ci nguuram dina ko eggali donc na leen bàyyi ñu ñibbi seeni kër parce que li ñu mënul nangu ñun mooy rakkam di Aliou Sall tudd nañ ko ci mbiru pétrole il a fallu de forte pression populaire pour que mu dem wuyu ji procureur fan la tollu ci dossier Aliou Sall ki nga xam ni mooy gorom di euh, Adama Faye di euh, Mansour fay mais woo nañ ko nee na bu ko of nag woowee du wuyu bi muy wax loolu mais euh, fan la procureur de la république nekkoon fan la nekkoon waa waa waa waa waa waa dikk également fan lañ nekkoon lu tax demuñu këram jël si ko pourquoi est-ce que mu war a am ay sénégalais ak yeneen sénégalais maanaam sénégalais yoo xam ni ñoom ils sont au-dessus de la loi ak sénégalais yoo xam ni bu lu ñu def ñu ñu fekk leen seen i kër noot leen je crois que loolu dafa nekk lu xaw a doy waar pour pour revenir ci marche bi ngay wax marché dafa nekk un droit constitutionnel sénégalais sunu constitution moo ne sénégalais bu am lu la naqari am nga droit manifester ko maanaam ci sa kàddu wala ci sa plume wala gi jeex nga def ko par une marche mais dans les limites de la loi je ne naka la Clédor Sène ak Mansour ak Fatou Abdou bu ne dañuy dem place de l'indépendance nga xam ni sunuy maam bi ñuy maam suñu bopp fa lañ taxaw ñaxtu ans après ñu ne waratuñ fa manifester bokk fa manifester ñu jàppale je crois que loolu. alors dañuy tere rassemblement. dañuy tere manifestation. waaw ñu ngi ci état. état sanitaire. waaw xam nga loolu. président de la république mi ko décrété moo ko njëkk a yéen ñëpp gis ngeen bi muy def tournée agricole ci biir mbas mi dem ci région yëpp nit ñi di saafonte di jaxasoo loolu wute na ak bi muy décréter état de catastrophe sanitaire quand parce que boobu moom moo jiitu mais ba tey ba ngi woon ci contexte su pandémie bi rek parce que xam nga mooy li ma doon wax sànq rek gis nga euh, euh, Jean-Jacques Rousseau dafay wax que ni donc le propre de la volonté générale mooy la loi mooy la volonté générale c'est de ne tous les Sénégalais sont égaux devant la loi donc nga nekk président ak nga nekk baykat wala nga nekk jaaykatu gerte c'est-à-dire que les mêmes droits la ñu am donc mënuñu bañal nit ñi ñu dox président bi ñu koy nangul en pleine pandémie muy def ay showam di def ay tournée agricole alors Sall monsieur Keita bu ñu déggee Mansour mooy peut-être arrestation ñoo ñu nga xam ne tudd nañu leen mais dañuy wax apaisement et le président de la République génn euh, ci fan yooyu nga xam ne manifestation yi am na euh, mu nekk émeute à Dakar et partout peut euh, ci ci biir Sénégal apaisement apaisement pour apaisement est-ce que ñu woon yegg si tey foo xamante ne nag dañuy ñoo ñooñu nga xam ne dañu leen dippee les détenus les détenus les détenus euh, les prisonniers politiques excusez-moi <laughs> d'accord moi je pense que effectivement mais balaa mooy ñëw si loolu ma ñëwaat si euh, vaccin yi euh, parce que tout simplement ñun déglu nañu nous sommes pas experts en santé mais spécialistes yi ñu ngi leen di déglu tey jii kenn du wax ni le professeur universitaire professeur Ndiaye xamul li muy wax et puis yebul sax sénégalais yi. professeur Daouda Ndiaye. professeur euh, ak dans. Euh, professeur Seydi ñoom professeur Seydi. voilà donc. Euh, mu doon comité boobu nga xam moo ne ci ginnaaw njiitu réew. c'est ça quoi donc ñoom seen bopp xam nañu li ñuy wax te li ñuy def tamit xam nañ ko teg ñu si yoon. mais ñun sénégalais ñi nga xam ne tey on des économistes bien on est autre chose mais lu ñu mën a def ba gëm leen ànd ak ñoom et positiver la chose et di wax ni euh, le bureau prospection économique tey def nañu seen sondage te 62 pour cent de la population aujourd'hui favorable nañu pour ce vaccin mais il y a qui sont pas favorables C'est normal, on est en démocratie. Effectivement, en démocratie aujourd'hui, la démocratie, ce n'est pas synonyme de paix, mais d'apaisement. C'est l'homme le président de la République comprendre. moo tax ma ni euh, quand on est en démocratie mën nga def des réalisations mais les populations souvent ak seeni euh, bëgg-bëgg seeni préoccupation et souvent on a l'impression que population bi dañuy indi si xamuñu ñu bëgg alors que population yi xam nañu lu ñuy bëgg mais plus tu fais des réalisations moins on a l'impression que defuloo te looloo tax tey jii ma ne nit ñi dinañu ñaxtu kenn mënu ci dara aujourd'hui c'est un problème socio-économique xale yi nañu wax nañu président de la république dégg na lañ et très rapidement il a pris des mesures très fortes par rapport nga arrestation yi tey man dama d'accordul concept ay France dégage je suis pas d'accord parce que aujourd'hui Sénégal et la France sont liés par l'histoire dire oui France dégage c'est parce que tu ignores l'histoire mais ku ah nekk libre nga ci sa combat. ah oui ah oui ñun nangul leen ko aussi. non je suis d'accord. waaw tey jii mm. regarde ces images on a mal en tant que sénégalais. di saccager. day Auchan di ko taal et cetera et cetera lépp ça vient de là-bas quand tu tu n'avais pas au départ ngay taxaw di théoriser France dégage tey lii ñoom la. du keneen. te mënuñu woon décortiquer message. ñoom ñoo pousser les jeunes vers. ginnaaw kas dama ni ñoom ñoo pousser les jeunes vers ce comportement. Mhm. mais j'ai dit ces jeunes là n'ont rien compris aujourd'hui ñii nga xam na tey. parce que le problème est socio-économique c'est pour cela je dis les structures instruments yi fa nekk pour accompagner la jeunesse ñoo war a dem vers les jeunes parler avec ces jeunes là les rassurer xam na ni kenn warul taal sa réew ku la poussé nga taal sa réew jàppal ni kooku n'est pas euh, leen ci am également beneen lecture euh, bu ñu gisee ne wax nga ko les sociétés françaises moom la xale yi euh, les jeunes dem di toj que quand jot na ngeen am lecture préférence nationale ci yu bari yoo xam ne Sénégal daf koy soxla ak doomu Sénégal. je xam nga tey même boo jëlee le code des marchés publics article quarante quarante quatre article quarante huit il y a des pour la préférence nationale. Mmh. Mais le problème c'est quoi? Au plan pratique, technique, sunu entreprise ont des difficultés. Comment? Ont des difficultés technique financières. yi nga xam ne tey jii parce que ces marchés yi ngay wax ni mais loolu état moom moo leen ci war a jàppale. mais état mu ne mi ngi jàppale tey jii boo xoolee eh, eh, am na ay instruments yu mel ni ADPME mais ñu ngi accompagner nos entreprises kay di wax ni tey jii. tey y des entreprises sénégalaises yuy dem dans la sous-région di gagner des marchés pourquoi on n'en parle pas c'est des marchés ouverts internationaux tey jii suñuy euh, entreprise nationales yi mais ñu ngi lëkkaloo nekk benn def ay coalition pour aller gagner des marchés ailleurs donc il faut pas que ñuy singaler les Français on est des Sénégalais ñun intérêt Sénégal moo ñu tax a jóg mais aussi France dégage ça c'est un slogan léegi arrestation yi lan nga ci wax parce que maa ngi la ko laaj depuis le début apaisement pour apaisement est-ce que tey je suis d'accord waaw moi aujourd'hui li may wax mooy sénégalais boo xam ne ni yaa ngi si yoon defoo dara kenn warul la laal mais bu fekkee ni tey la justice ñoom ñoo am seen information lu tax ñu tey leen donc ça c'est de la justice man du ma si commentaire. Haj euh, gis nañu ne euh, moom li mu wax ne euh, toj yeeg kas yeeg yu mel noonu am na ñu mu ko ñu ñu mu ci dut baaraam maanaam ñi responsable est que waruñu mënoon am beneen lecture par rapport à cela donte le la république moom lecture bi mu am mooy dafa décortiquer le message de la jeunesse xëy na ci sonn gi moo tax mu oyofal yooyu yëpp li muy wax nekk toj beeg kas beeg singli France bi est-ce que waruñu waroon a mën a amaat beneen lecture ci wàllu woowu xam ne kat lii c'est un signal bu nga xam te ni ndaw ñu joxe nañu ko te it ñoom ñi ji te dañ ko war a décortiquer. waaw parce que xam nga li li am Sénégal euh, daan na am xëy na ay ay soubresaut politique maanaam ay yëngu-yëngu mais mosul egg fii. li tax nag moo egg fii mooy effectivement les sénégalais sont fatigués xam nga problème pour nga régler ko il faut que nga reconnaître que c'est un problème ndaw yi boobu ba léegi ñu ngi dem ci géej gi léegi fàtt nañ mënatuñ dem ci géej gi jàngoro ji ñëw ñàkkum xëy mi am loolu yëpp ci leen mu nekk ay frustration donc état bi moo ko def pour exprimer leur colère pour exprimer leur déception parce que xam nga nit bu demee ba mënul fay di jël gaal pour jël jóge Afrique dem ba Europe c'est parce que foofu kooku dund ak dee la yemale. yaakaaram tas na et je crois que quand même euh, ñëw rek jeter l'anathème sur ay Guy Marius Sagna parce que ñoo inséni non je je me dis que c'est ba pare c'est pas assez responsable pour un état tey fekkoon état du Sénégal de 60 à nos jours tabaxoon nañu ne yu mucc ayib ay centres de formation yu mucc ayib jël loo ressources humaines industrialiser leen ñu am ay usines au Sénégal yu ndaw ñi di xëy suñu jàngee ba am ba am seen bac du ñu xalaat dem Europe ñu toog ci Sénégal parce que y des universités yu fi nekk yu ñu mën a jàngee donc su doon loolu état bi créé na les conditions d'émancipation de la jeunesse loolu yëpp du am lii am ça veut dire que les politiques qui ont été menées dans ce pays jusqu'à présent ont échoué et corona bi tamit daf ko gën a fësal parce que corona bi bi ñëwee qu'est-ce qui s'est passé on s'est rendu compte que mais le le plateau médical sénégalais était pauvre le ministre de la justice depuis ñu juddu ba léegi ñu ngi dégg financement de la Chine financement de la Banque mondiale mais te ñoom bu ñu feebaree faju ñu bitim mais c'est une contradiction le paradoxe c'est ce qu'il appelle l'hypocrisie des institutions man je dirais l'hypocrisie des États dañuy wax di woote loo xam ne ñoom xam nañ ni c'est contradictoire aux réalités socio-économiques ce qui s'est passé mooy nos ressources ont été aliénées à des puissances étrangères et ça il faut le tey jii or bi di génn Sabadola di nekk Tambacounda mais suñ ko defoon par exemple ñu jël sax une part jox ko jox ko mais jox ko suñu bijoutier yi ñu koy exploiter parce que nos dames et nos sœurs dañuy dem ba Dubaï di fa jënd or ñu créer à, à l'ouest du Sénégal un comptoir le comptoir de l'or de l'Afrique de l'Ouest bu bu nga xam ni sunu ay sunu ay tëgg dem nañ ba am doole financièrement ñu créer seen banque mën nañ ko tuddee sax la banque de l'or parce 700 banques yooyu ñu am mi ngi tàmbale ci benn mine de charbon bu nekk bu ñu tuddee Arbet au Luxembourg moom moo dem ba engendrer 700 banques xoolal Sénégal on n'a même pas une banque souveraine on n'a même pas de banque nationale pour un pays qui a milliards de budget il n'y a pas un seul franc qui transite par une banque souveraine kooku c'est un problème la diaspora également ils effectuent des transferts d'argent qui s'élèvent à plus de 1000 Mais Taïdi, ils sont en train d'être traqués et je vais, profiter de ce plateau pour attirer l'autorité, l'État les, les, euh, l'attention des, des, autorités de ce pays pour leur dire que ni, les Sénégalais, pour nous franchir les frontières européennes du Sénégal, les Guinéens vérifier cette vérifier pour voir s'ils ne transportent pas par de l'argent parce que Européens, ils ont eu et flux d'argent bobier, mini du Sénégalais ou du ci ci taxaw que au champ peut-être ñu station Total yi doo dem ba fekk fa tubaab bi liggéey tey Auchan communiqué bi mu génnee c'est plus de. 1700 euh, junni ak euh, juróom-ñaari téeméeri ndaw Sénégal ñooy liggéey ci ci ci yooyu est-ce que itam euh, ja maanaam jotul ñu changer peut-être xeexin ci ci ci. waaw xam nga ñun yàq moom duñ ci ànd ak xeetu yàq bu mu mën ci doon. parce que ku war a tabax waroo yàq. parce que aussi mënuñu boole ndóol ba pare ak ñàkk jàmm. ce qu'il faut comprendre c'est que aujourd'hui si nos parce que état yi boo demee aux États-Unis en France c'est après qu'ils ont libéralisé mais yi ci ëpp état bi moo leen accompagner je vais te dire une chose investisseur chinois bu ñëw Sénégal y a chinois qui est moo ko financé pour mu ñëw investir soit mu jënd benn carrière wala mu investir dans le pétrole l' état du Sénégal aussi devrait faire la même chose parce que tey ji soo xoolee sur tout le littoral qu'est-ce qu'on nous dit on a 750 kilomètres de côte mais bu fekkee dañ ko jaay yëpp nag jox ko ay contrat de pêche géej gi loolu tey jii imaginez le village bu mel ni Wakaam Ngor Yoff ñu dem ba saint en passant par les îles du Saloum fu ci nekk bu fa état bi defoon benn usine de transformation de poissons et de produits halieutiques foofu yëpp nekk ay est-ce que tu est-ce que yaa ngi imaginer ñaata emploi la mënoon générer mais bu ñu ko commencé woon depuis les indépendances kon duñu egsi fii ah. dafa dafa dafa dafa doy alors bu bu ñu déggee peut-être monsieur Mboup mooy euh, ñàkkum xëy mi bokk na eh, ci li nga xamante ne moom moo tax eh, les jeunes génn et le président quand même décrypté na message bi ndax loolu la wax ci à sa sortie eh, maanaam bi mu génnee mais tey mu wax 350 milliards yoo xamante ne dañ koy teg dem ba sax ndaje moo xamante ne war nañ ko amal fukki fan ci weeru avril mais est loolu traduirul un peu échec ji kuréel yi nga xam ne jot nañu ko fi teg lépp pour pour l'emploi des jeunes bu ñu ko doon lim tey du ñu fi jógee. waaw je pense que euh, par problème bi le problème s'est toujours posé mais nañu jàpp ni tous les gouvernements du monde tey sont frappés par la crise de l'emploi aucun gouvernement n'est épargne Sénégal euh, statistiques yi en tout cas li mu révélé mooy chaque année sur le marché de l'emploi c'est plus de deux cent mille nouveaux demandeurs d'emploi mmh. Ces 200 000 nouveaux demandeurs d'emploi, l'offre ne dépasse pas 60 000. Du coup, on accepte que chaque année, c'est plus de 140 000 jeunes, ils sont laissés en rade. Mais la constitution sénégalaise, elle est très claire. Moi, article 25, l'État doit mettre en place les conditions pour permettre aux jeunes d'insérer le marché de l'emploi. Les demandeurs d'emploi, 31 pour cent ay diplômé lañu. 31 hmm. pour cent ay diplômé lañu. 46 pour cent c'est des jeunes qui n'ont aucune qualification. qu'est-ce que le président Macky Sall a trouvé ici mooy statistique boobu mais da ngay jàpp ni tey yàgg naa ko théoriser plus on est diplômé dans ce pays moins on est qualifié parce que dafa am benn problème inadéquation. entre l'offre et la demande employabilité président Macky Sall nag qu'est-ce qu'il fait lii nga xam ne Ablaye Wade def na ko mooy euh, curricula bi mu fi fekk mu renforcer ko au niveau élémentaire approche par les compétences déglu ma bu baax pour mu xale yi nga xam ne ni dès bas âge ñu xam lu ñuy wax savoir-faire président Macky bi nga xam ne ni tey au niveau élémentaire renforcer na curricula bi secondaire bi mu yokk le niveau euh, des blocs scientifiques dans les écoles ou les collèges créer ay université euh, ay lycée technique université technique pour que nos diplômés bu ñu génnee d'ici les années à venir qu'ils soient opérationnels mais dafa am benn affaire 46 pour cent des jeunes amuñu aucune qualification si ay région la ñu dëkk région boo jël nag am na potentialité économique président Macky Sall tey dégg nañu korok yàgg na ko wax on va créer des centres de formation dans chaque département pour ñu valoriser les potentialités économiques naka lañ koy valoriser dañuy créer des activités génératrices de revenus ay centres d'incubation tey boo demee Richard Toll euh, boo demee euh, dëkk Aly Ngouille Ndiaye mais tout le monde sait que là-bas c'est c'est le lait mm. mais dañu créer ay centres d'information tout ce qui est transformation en produit laitiers ay mbuur produits halieutiques et cetera moi je que tey il faut que jeunesse bi ñu yóbbu leen vers la promotion de l' entrepreneuriat. parce que maa ngi ñëw waaw entrepreneuriat yooyu ngay wax bu amoon kon mango bi yaakaar naa du yàqu ci ay douane yu bari gerte bi du ñu am problème boobu parce que centre de transformation yi ngay wax. yi aussi li ma indi na ay instruments yu baax. mais c'est quoi le problème alors. y' problème xam nga tey problème mooy y' a beaucoup de jeunes aujourd'hui ils vont pas dañu du ñu dem vers ces euh, ces structures euh, euh, d'accompagnement lu mel ni ANPEJ ils se disent que boo demee c'est politisé c'est faux l'ANPEJ ne doit pas être l'ANPEJ du parti socialiste ou bien de l'AP c'est l'ANPEJ de mais mais mais monsieur Keita parce que li ngay wax nii noonu la waroon a mën a mën a amee mais est-ce que tey bu ñu gisee ne ni nga ko waxee structure yooyu yëpp déjà bëri nañ wax nga ANPEJ DER mi ngi fi peut-être FONGIP ba ci sax ñi nga xamante ne moom moom mooy Prodac euh, même si du financé mais pour xëyu ndaw yi la ay ay structure de financement yoo xam ne yu ndaw yooyu noonu yëpp la ndaw yëpp mënuñu ndax ndaw yëpp mën nañu bokkandoo bañ a dem foofu pour bañ a am résultat problème bi est-ce que nekkul euh, feneen fi nga xamante ne moom ngay wax ne ñu bari dañu jàpp ne il faut nga am bras long euh, mën a am ci financement yooyu man dama d'accordul tey jii nga nekk responsable je prends un exemple ANPEJ nga jàpp ni fi ñu la teg foofu da nga war a jàppale ndawu parti bi rek c'est faux c'est pas normal li am solo mooy da ngay tuer le euh, euh, l'ANPEJ de tous les jeunes sénégalais mais je pense que tey la crise de l'emploi euh, di ñëwaat encore mm. mais tey bu ñuy waxee tey lu mel ni ay BND mais ñu ngi accompagner nos entreprises locales pour au moins xool naka lañ leen di euh, promouvoir ñu mën a vraiment euh, euh, accéder au financement et cetera mais la crise de l'emploi tey wax nga ko léegi Auchan Auchan y a 1700 travailleurs 1700 sénégalais après qu'est-ce qu'ils vont faire damul si réseaux sociaux yi la moo ko indi c'est des jeunes qui ont saccagé des jeunes de dix 17 ans treize ans quatorze ans xamuñu dara mais ñoom ñëpp yor nañ seen portable fa la ñuy dugg di déglu ay tunkara Tounkara mm-hmm. di wax taal leen dëkk bi. non non mais c'est comme ça que ça se passe. booy ñu jàpp ne non dañuy wax non dañuy wax. parce que loolu mooy tax on ne personnalise pas. monsieur Keita on ne personnalise pas mais loolu moo tax xam nga tey. moi j'ai mal au cœur. d'accord très rapidement. j'ai mal au cœur parce que tout simplement ñu ngi foyee cette jeunesse là. képp ku jàpp ni. tu mm-hmm. vas régler la question de l'emploi dans ce pays. d'accord da ngay wax nit ñi lu la neex. alors El Hadj Mansour moom wax na ko nee na jàpp na ne ñu ngi foyee jeunesse bi est-ce que état waroon créer ay conditions ba récupérer jeunesse boobu. Euh, utal leen peut-être euh, cadre bu nga xamante ni daanu mën a euh, sukkandiku ngir am ci lu ñu jàpp que ñeneen di leen di di leen divertir ni mu ni ni mu ko waxee bëgg naa itam nga ñëw ci jafe-jafe emploi bi nga xamante ni ndaw ñi amee nañu ko te mu doon nag pas ci magistère Macky Sall rek jafe-jafe la ci état bu bu maanaam bu fi mënti jaar loolu itam ñoom waroon nañ ko xam nag laataan ñu ñëw ndax bokk nañu xëy na ci bokk nañu ci ngóor laataa ñu yegg si fii. effectivement. Euh, donc ndaw ñi tey euh, seen ay jafe-jafe euh, li ko waral mooy l'échec des politiques publiques euh, parce que tey jii nous avons suffisamment de ressources yu ñu mënoon valoriser comme je dis créer des entreprises pour que ndaw ñi suñu ñu jàngee ñu former leen ba pare ñu am fu ñu leen insérer tey jii soo gisee école bi dafa yàqu loolu moo waral li am yépp am Donc ce qu'il faut faire, à mon avis, et qui est urgent, c'est qu'il faut réinventer le système éducatif sénégalais. tubaab bi ñëwuñu rek di defar avion ak ay train ñu naaw de déedéet dafa am fu ñu jaar tàggat seeni ndaw boo demee États-Unis amoo sañ-sañu am doom te doo ko dugal école. te ñoom du ñu du ñu 16 millions comme ñun c' est 350 millions d' te amuñu ñaari président benn président la am soo demee Chine ils sont 1 milliard 350 millions ils ont un seul président te c' est pays qui marchent xale yi dañuy dem école ñu tàggat leen ressource dëkk bi état bi téyel ko boppam pour doomu dëkk bi parce que ça également c' est fondamental mais soo amee entreprise ni Sonatel par exemple moo ko ay cadre sénégalais téye ko bu yóbbu ko fi ñu ko yóbbu état bi bi ñu koy bi bi ñu koy aliéné en di ko jox France Télécom donc a hauteur de à hauteur de 33 pour cent avant muy nekk 42 pour cent mais la Sonatel faisait 73 milliards de de de bénéfices. mais boo demee France tey dëkk yi ñuy jël suñu entreprise di leen ko jox mais SNCF boo demee c'est des Français qui y travaillent SNCF c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est la société des chemins de fer en France SNCF état français moo ko moom à 100 pour cent EDF électricité de France état français moo ko moom à 94 pour cent mais ñun ndox mi nga xam ni mooy moom la ñuy naan di ci sangu di ci di ci jaamu yàlla di ci jàpp mais ñu ne sax ñun mënuñu yor suñu ndox suñu ndox suñu bopp moi j'ai compris que ni Sénégal amul ndox ñu koy jëlee France di ñu ko jaay mën naa ko nangu mais ndox mi fii lay taw dañ koy stocké c'est gratuit ñu jël ko non seulement en dépit de la cherté de l'eau mais ñu jox ko ay doxandéem pour ñu ñu koy jël di ñu ko jaayal c'est ça qui est écœurant te tey jii nous savons tous que les entreprises étrangères qui viennent chez nous les multinationales ils viennent pour faire du profit tout en gardant la précaution d'avoir le moins de de de de d'emplois possible il ne recrute pas soo demee Sonatel léegi ay intérimaires rek ñoo fa nekk. Mm-hmm. or bu ko état bi yoroon tey jii il aurait les coups de franche pour promouvoir ce qu'on appelle une politique de l'emploi et le secteur informel c'est-à-dire l'artisanat au Sénégal aujourd'hui fu mu nekk nii dee comme ni mu ko waxee suñu jëloon ci or jox leen ci benn quota ne leen or dañ ko jox gis nañu ko tey ci info yi le président de la république bi wax ne nañu bàyyi débat boobu nga xam ne moom moo jëm ci laam-laamee troisième mandat bam euh, euh, moom euh, mosul wax ne dafay sampaat ndëndëm pour une troisième fois ban lecture nga am ci loolu mm, waaw ñu boola leen ko waaw mën a yëkkati jotaa bi eh, eh. léegi loolu xam nga xam nga xam nga boo jiitu buñ la jiitalee da ngay leeral li yëpp bu ko leeraloon xëy na coow yu du egg fi mais xam nga ñu fal la ci ay conditions yu leer voté fal la plébiscité la à à hauteur de 65 pour cent askan bi la def buur jël la teg ci kaw jël mooy yëpp jox la ko askan boobu bañu la. moo mhm. ñu leen a jël fal la jox la jox la suñu xaalis jox la sunu alal jox la doole muy les force de l'ordre nga jël ko wëlbati leen ci kaw askan wi di jël nit ñi di tëj ku wax nga tëj. di leen fekk seen kër di leen opprimer ba pare mujj ñu ngay rey ay nit jël sa ay milices jeter leen contre le peuple milices yi ñoo excité jeunesse bi. saa il faut le dire gis nga bi jeunes yi gisee ni am na ay nit yu yor ay gourdin ak ay mbol di génn di leen dóor ils ont voulu se venger mais kenn xale yi nga gis amul sax ñu ci ñi ci bëri amuñu 18 ans parce que xam nga aussi euh, Macky Sall dafa nekk koo xam ni il s'est trompé de combat malheureusement parce que au lendemain des élections qu'est-ce qui s'est passé yi di xeex ce sont les primo-votants ñi ci ëpp ci ñoom dañ leen xañoon seen seen seen seen droit de vote inscrire lu leen ci liste yi loolu tamit bokk na ci gën a bi maanaam maanaam frustration bi bi élection yi jotee ñu génnee résultat yoo xam ni ay mois auparavant nit ñi xamoon nañ ko déjà mu génnee arme bi ak doole ji ci mbedd mi heureusement sénégalais yi am auteur toog seen i kër mais si les sénégalais étaient sortis à la veille des élections lu am lu raw lu am Guinée moo fay am parce que li am ak nervi yi ça montre la ni nous sommes en pleine dictature ah te fu mu nekk ni malheureusement euh, loo ci wax puisque le 31 décembre dafa ne moom dina oui dina non tey nag euh, bu ñu sukkandikoo ci journal bi nga xam ne moom moo ko fësal muy les échos voilà y' a pas deux versions. Hmm. benn version moo am mooy le président Macky Sall Sénégalais yi am nañ si moom confiance dénk ko réew mi dénkaat ko réew mi pour cinq ans mu def deux ans mu dese ko trois ans trois années nag coow lii ça fait un an donc mun naa jàpp ni depuis loo xam ne ni quatre ans moo ko dese quatre ans c'est pour former un master on n'a pas le temps de parler quatre ans c'est pour placer le Sénégal sur les rampes du développement ñun kenn duñu divertir on doit travailler déglu askan bi régler seeni problèmes régler les préoccupations des Sénégalais sa président Macky Sall loolu la wax nañu bàyyi coow li dañu bàyyi coow li léegi li am solo mooy Sénégal kenn du ko taal ku bëgg a taal Sénégal taal sa bopp urne la ñuy dem ku bëgg a politique ku bëgg a politique politique demal occuper le terrain mm. pacifiquement seeti askanu Sénégal ñu wóolu la ñu xaar ba élection jot nga dem. très bien urne yi te Sénégal loolu mooy suñu démocratie. mais démocratie du tax di manquer respect on dit le président de la république Macky Sall. d' accord très rapidement El Hadj Mansour parce que mu fay siñ ko ne waxtu bi. waaw léegi léegi damay xam ni moom laay jox le président Macky mooy. Mm-hmm, mm-hmm. li mu deful en neuf ans mënu ko def en moins de trois ans. parce que 2023 sera une année électorale donc deux ans et demi moo ko fi dese institution yi nga xam ni dañ leen salfaane. jël le, le judiciaire jël en fait euh, le législatif muy député yi fexe ba noot leen di leen def loolu ko neex loolu na ci génn créer un équilibre des pouvoirs stabiliser l'économie sénégalaise fexe ba mbas mi mu fexe ba ñu génn ci maitriser ko xale yi ñu tabaxaat école bi dugal leen ci def ay centre de formation ressources yi ñu aliéné li nga xam ni de manière stratégique mën nañ ko jëlaat ñu jëlaat ko mettre ko au service du peuple. je crois que loolu moo gën a responsable te loolu moom mooy régler problème mu Sénégal. merci beaucoup El Hadj Mansour Mboup ñuy fàttali ne yow ñu ngi lay gërëm bu baax a baax sa teewaay ci émission Sen Show naka noonu itam euh, Saliou Keita directeur général bu CICES membre de l' euh, pour la république euh, fatab yow itam sant ngërëm ñeel na la ci gunge gi bi ci biir émission bi lee di Sen Show yi programme bi day woy ci Sen TV la chaîne leader ñu bàyyi leen ak kon sunu programme di leen jox di day incha allah ëllëg ci yeneen